nuyu naa la. maa lay fay. naka tey. sant yàlla bu baax. Adja foo nekkoon. man maa ngi si town bi. Ah. waaw. yéen lekk avance ngeen gisu ko. non maa ngi fi de. génn ah, maa ngi si bi Idi. Ah. waaw. tey ñu gis booy xew la yéen ngeen génn. waaw booy jël suñu waay la suñu gaan xam nga xew la tey yoon la ñu ñëw jàppale ko ci bisam quoi. xam la di ko ñaanal yàlla ndam lu sedd wi ci barke Seydina Muhammad ñu ko koy ñaanal bu ngeen Fourrière. waaw xam nañ ko nag. yóbbuwaate fourrière ah waaw ba tey mais na daanu rek loolu amu problème bañ ñu ku ñu dóor bañ ñu ku ñu def dara daanu rek la ñuy bañ. waaw allah te yàlla dinañu may ndam. seen ko Boy Jules xeex. Boy Jules mën na lépp. Boy Jules maanaam ma ko ci xeex tiitu ma ko ci bëre Boy Jules mën na lépp waaw fausse pointure la waaw Boy Jules fausse pointure la. marque bi koy gars yi yaakaar romb na foofu. saay la gis naa ko simple bi saay saay bu mag la fausse pointure la laa ah. Boy Jules mën na lépp wàccaay waaw ñi ngi waaj la waaw mooy loolu Alboury ndaanaan la mais tamit xam nga ndaanaan ndaanaan ndaanaan moo koy feeñal tamit aka ma ko nangul ndaanaanam waaw ci arrêt yooyu nag laa bëgg ñu yegg si yàlla bu si arrêt bu ñu yegg rek na ñaan ñu waat ci ma ku ñuy may ay arrêt nee na oto bi jarul muy daw dara mu oto bi day raam ngeen cëppeelu mu daan la yéegaat si oto bi arrêt pour arrêt ma ne arrêt boobu bu ñu yeggoon du ma xaar mu yegg ci arrêt bi mu bëgg a yegg ci benn arrêt boobu su ma ko daanee dina xam ne du ma moroomam kon foo ak moom si ay moom ay arrêt arrêt arrêt bëri yu bëri yooyu non non benn bëri nga xëy daan rek mu xam ne doo moroomam di nga xeex di nga bëri bañu ma loolu jara bañu loolu man bañu ma lu metti de man lu metti ba ma juddoo ba léegi si lu metti laa nekk yàlla xam na ko ñi ma xam ñëpp xam jara maa nga dem kër sëñ Modou ñaa fëgg sëñ Modou ñaa ni ko de ana jara mun la jara musul bëgg lu yomb lu xotteeku rek la wër man ay combat deux jours laa doon jël trois jours xaaruma am combat pour entraîner ku parewul mooy xaar ay combat lii nii man promoteur bi dafa ma nax ndax dañoo jël combat bi ba si biir ñu dem ba si biir làmb ji nekk ay six mooy loolu noonu mais lépp lépp rek tamit ñu ngi liggéey quoi nekk suñu ruq di liggéey quoi parce que Seydina Mouhamed Alboury lu ma koy yóbbante ah maanaam comme ni ñu wax lépp rek yàlla may ko jàmm may ñu jàmm waaw bu xeexee ah bu xeexee ñu xeex bu bëree ñu bëree le 26 incha allah waaw waaw bu soobee